salaamaaleykum sama mbokk yi maa ngi leen di nuyu ku nekk turam ak santam ñu ne ñu leen di yëndi audio bi ndaxte Italie dafa nekk di dafa nekk si waxtu bu nga xamante ni si waxtu émergence sanitaire bi émergence sanitaire bi lu nga xamante dafa garaaw lool ñu ne léegi ñu leen di jox si xibaar yi. ñu ne ngeen déglu bu baax suñu leen ñoo wax si lu ñu leen di ñoo wax nii mooy si feebaru émergence coronavirus bi dafa nag feebar bu nga xamante ni un virus que colpisce i polmoni mooy dafa nekk nga xamante ni dafay grawlul si poumon yi et si diffendo a traverso il contatto lu nga xamante ni si dafa dañ koy am tamit si diggante bi diggante ak benn nit nga xamante ni dafa dafa dafa feebar ñu ne feebar bi dañ koy wàlle nu muy wàlle waaw da una persona mooy ku am feebar bi da koy wàlle si benn nit nga xamante ni feebarul ne nu mu koy walle mooy maanaam ku sokoot maanaam boo sokotee boo sokotee ci sa loxo bi mooy maanaam dañuy joxe tamit benn exemple fii mooy exemple to sando konde man mooy maanaam boo sokotee si sa loxo yi e boo raxasul sa loxo yi nga laal sa kanam bi ma buy ne kanam bi mooy sa kanam bi sa bët sa sa bi sa fu ne fi attention coronavirus bi contagia tuuti senza distinzione di nazionalità e colore mooy feebar bi bu nga xamante ni buy wàllee du wàlle ndax kii nationalité lii la wala nationalité bee la buy wàllee ñépp la xoolul tamit si couleur bi ma couleur bi xoolul ndax kii nit ku ñuul wala kii nit ku weex la dobbiamo tuuti fare attention dañ def ñun yëpp attention pour bañ a am feebar bi ndaxte feebar bu nga xamante ni da si wala ne ci bés yi bés yi passé nii gouvernement italien bi dañoo tëj école yi yëpp ñu tamit dañoo ne kenn bu mu manifester tamit manifestation manifestation mooy manifestation publique yi ñu ne complesso les partis ak kii tamit football bi tamit dañ ko interdit fu mu nekk nii ak église yëpp mooy église yi pour julli bi ndaxte ñi ñi dafa nekk lu nga xam ne ñii dañ koy bari loolu ok ñu ne démb si guddi ñu ne démb si démb si guddi waaw gouvernement italien bi dañoo waxtaan e ñu génne benn loi bu nga xamante ni pour ñi ñi bañ a génne ñu eb ko les règles de la sécurité da daa oji mu ne ñu ne mu ngi nii ni ma yu nga xamante dañ naroon dañ ko naroon suivre evitare assolutamente a luogo affollati affolati ñu ne nañu moytu bu baax di dem fu nga xamante ñi dañ fu bari lool stare in casa ñu ne ñu des kër kër ga è possibile uscire solo per motivi di lavoro ñu ne tamit am na possibilité pour nit ki génne waaye nit ki bu génnee tamit motif yi mooy maanaam kuy dem liggéey oo kuy dem stage bu ñu ne stage tamit terosino tamit bokk na si pour ngeen ñu ko xam tamit per motif di saluté mooy tamit ku feebar oo ku am yeneen soxla nga xam ban soxla la ok se dovete spostarvi per questi motivi rivolgetevi agli operatori che vi consegna consegneranno i moduli necessari per i, gli spostamenti ñun tamit ku bëgg a génne pour dem feneen danga doon woo sa opérateur yi mooy man responsable yi pour nga wax leen dañ leen da nga leen di jox benn bu nga ni danga koy danga si bindi fu nga dem ak lépp non è possibile lasciare il proprio comune e andare aw natru altro ñu ne mënul nekk ni ki bàyyi sa dëkk mooy sa commune bi dem si beneen dëkk ñu ne per andare a fare la spesa è necessario organizzarsi ñu ne ku bëgg a dem def ndugg ji ndugg ñu ne dafa eh, dafa nécessaire yu nga xamante ne pour ngeen organiser si noo àndaatee groupe ngeen bañ a dem si ngeen bañ a ngeen bañ a dem si mbooloo chiedete a di fare la spesa per tutti ngeen laajte tamit benn nit pour mu defar leen dugub bi pour yéen yëpp et àndaate si almeno possible mooy maanaam que ngeen bañ si dem chaque jour tamit di dem def ji ndugg ji è necessario inoltre osservate rigorosamente queste norme igieniche ñu ne tamit dañ leen wax benn kii du nga xamante ni si si set bila la set bu nga xamante ni boo koy defee chaque fois defe naa feebar bi tamit doo ko gaaw am mooy que lavatevi specie le mani con acqua con sapone mooy que mooy que raxas sa yi ak ndox ak saabu oppure comme ak seen alcool yi du alcool yi maanaam seen affaire yi pour désinfecter loolu lañu ñu naan ke gel con contage alcool non toccatevi gli occhi mooy maanaam ngir bañ laal seen kanam bi ak seen loxo yi mooy maanaam boo leen raxasul seen loxo yi naa doon la laal seen kanam bi mooy bët bi gémmiñ bi fu nekk daal si sa kanam bi naroo ko laal sa loxo boo ko raxasul ok è e e vietato assolutamente fare entrare in casa amici e persone di fuori ñu ne dañ ko interdit tamit saxarit yi ñoo seet si la oo nga dugal yeneen di nga xamante ni nekkuñu sa kër ñeenti braas mooy maanaam naruñu def braas yi ñu def tamit naruñu fonante pas si strette maani di maano fino a quando l'emergenza non sarà finito mooy maanaam yooyu ñu ma wax ni dañ ko naram dañ suñu ram moytu loolu bu baax boo feebar bi balaa feebar bi di jeex rispettare la distanza di almeno un metro dalle persone mooy maanaam ñu sorante tuuti tamit ba un mètre entre ñun ñu sorante tuuti quoi mooy maanaam ku ku ñëw boo nekkee si wéet benn nit fa nga def un metre pour ngeen bañ a déggante loolu ñu ne tamit evitato di mangiare nel, pia ne, nel piatto degli tamit ñu def attention si lekki mooy bu ñu ne lekk yi si plat plat yi mooy si plat yi beneen nit bu lekkee si benn plat ngeen ngeen bañ si lekk yéen tamit balaa ngeen si lekk fu ngeen neen raxas ko bu baax te tamit boo leen koy raxasee ngeen raxas ko ak xel ak tamit mooy pi boo laabee boo leen laabee boo leen raxasee plat yi bikeer yi mooy kaas yi ku ko laal rek bala nga koy laal il faut nga raxas ko ba mu setu ñu ne ngeen pulite spesso ñu ne ngeen raxas tamit taabal yi mooy taabal yi fu ngeen di lakkee les manees de les portes mooy maanaam porte bunte yi seen jàppukaay bi da ngeen ko nar a nettoyer chaque fois ak seen disinfectant lu ñuy wax noonu seen disinfectant bi ok ñu ne fii attention ci sentiment la ñu ne boo feebaree sa bopp bi bu lay metti Oh booy sokote tamit oo oh, nga feebar si yeneen feebar na nga jéem a woo sa responsable nga wax ko mu ne ñu ngi si fin bi léegi ñu ne si trois semaines yi passé nii c'est c'est start of Luka boo boo nekk boo nekkuloon fii Luka te nga demoon dëkk yu nga xamante mooy Milano Venezia o beneen dëkk fii si Italie nord nanga ko wax sa opérateur yi ñu ne dafa nekk dañu nekk si benn waxtu bu nga xamante dafa metti lool maa ñun yëpp dañ si génne incha allah rabbi ok salaamaaleykum loolu laa lu ma leen di wax si wolof bi maa ngi leen di gërëm